ku di murit dana dana dana déglu ci kaw suuf kuy dund boo sañoon sañ jeetaay bii ku di murit dana ci bokk ma wax wax ci wax ci wax ji wax ngeen ko ba noppi waaye loolu mooy mooy mooy mooy mooy xasida yi xasida yi xasida yi mooy sëñ bi xasida yi mooy sëñ bi ku bëgg a xam sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi ku bëgg sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi fonk xasida yi de kuy wut sëriñ bi da ngay ne fonk xasida yi sëriñ bi mooy sëriñ xasida yi mooy sëriñ bi xas yi moo nekk moo nekk diggante moo borom digg ma yonent bi digg ma boppam xasida yi mooy sëriñ bi kon liggéey bi réy na liggéey suñu tuwaa réy na lool ndax luy luy lu baax rek luy lu baax rek nañ ca nekk nekkal ko ca mu dib liggéeyam waaye xasida yi nag mooy liggéey bi mooy mooy moo jiitu ci liggéey bi moo jiitu ci liggéey bi bu doon xare bu doon bu xare ña nga xam ne ñoo jiitu xare bi topp seen gannaaw ñu jiir gisee fu xare fu toll bu fekkoon noonu ab xare la kon jàngi xati fonk këti xasida yi xam xati xam xati xasida yi bëgg gënti xasida yi liggéey gënti xasida yi kon ñooy jiitu ci kanam xasida yi mooy sëñ bi buñ ko xamee ak buñ ko xamul xasida yi dafa jar jóg jàngi xam-xam am xam ñëw ñëw nag ñëw nag nekk ci biir xasida yi di liggéey xasida dafa ja dafa aajo jàngi xam ba am xam-xam ñëw nag jëbbal si lépp xasida yi nekk ci sëriñ bi loolu loolu la laajoon dégg ngeen wax bi loolu la laajoon benn murit bu ne bu xamee lu xew dafa war a daa daa war na jóg jàngi xam-xam jàng ba ne ar dellu si nag nekk ci xasida yi nekk ci sëñ bi dégg ngeen wax bi loolu la laajoon loolu la laajoon jërë ngeen jëf damay damay yéen yéen yéen dama leen di firi damay firi rek waaye def ngeen lépp waaw nii rek la loolu loolu nag du yéen sëñ be sëñ bee tawfeex bi moo leen dugal ci loolu moo leen ci moo leen ci nargan moo leen ci wommat loolu du yéen sëñ waaye wax baa ngoo xel loolu loolu loolu mooy dafa ne am na góor gu bari xel ba muy gënee di gone di ndaw muy waxtaan bi déggoo lool bu ñu waxtaanee baag ci si mbir yi ma ne ah waaw ko koy diw kooku daa xamul li xew rek mu ne waaye bàyyi li nga wax xam li xew a jafe waaye yéen ñi yéen xam li xew mu ngoog de noonu la de kon jërëjëf jëf jërëjëf ñëpp tàllal ñëpp tàllal